continuer di def seen liggéey waaye ba tey état bi daa mel ni am na ay jafe-jafe ngir xam ñan ñoo nekk ci ginnaaw lu ci mënti am mooy nekk na chaîne YouTube boo xam ne sénégalais yu ci bëree bëri dañ koy di topp ndax xibaar yi muy joxe information yi muy daal di partagé moo waral ay vidéo am mu gàtt gàtt day am entre cent mille et trois cent mille vues bi nga xam ne ñi koy suivre ci sénégalais yi bëri na lool ñëpp xam nañ ne sénégalais yi duñ topp mukk lu leen intéressé wul lu ci mënti am dinañ xam fu wànnante di mujjee ak i gëttam entre xalaat TV ak état du Sénégal beneen mbir mu ñuy addu mi ngi ñeel Mame Birame wàcc moom nag nekk journaliste ca fa TV dal dinay xam le ne dañoo nekk di ko menacé waaye itam di ko dal di topp dem na sax ba am na ci ñoo xam ne jot nañoo ñëw ba ci buntu këram nee na nag mooma dina jël disposition yi nga xam ni moom moo ci dal di war ba képp koo xam ni ñëwati na ci booru këram lu weesu vingt et maanaam neuf heures ci guddi moom dina jël ay responsabilité ma dal di koy lijjanti comme ni daal koy am lu ni mel itam dégg nañ ko ci ma Madiambal Diagne moom mi nga xam ni moo ne woon Ousmane Sonko daa génn Sénégal daal di addu ci mbir mu ni mel mu ne képp ku ñëw ba taal këram xamal ne doo ñibbi ndax moom nee na bu fekkente ni disposition yi état jël yëpp jël na ko ba noppi alors que moom sécurité am mënuñ ko assurer moom la ca des dina ko mottali ngi daal di protéger ab njabootam waaye itam protéger boppam lu di mel itam la mam Birame Wathie wax kon nag mu mel ni niveau de sécurité bi war nañ koo gën a daal di yokk ndax buñ ko deful bañ dem ba sénégalais yi ku ci nekk di fajal sa bopp mën naa jur ay jéye yoo xam ne duñu xam fan lañ koy waxee kon ci mbir mi politique mooy kum ci mënti doon surtout nag ñi nga xam ni fareewuñ ci état du Sénégal léeg ñuy jot ay message ak i appel yoo xam ne ay menace la ñenn ñi di leen topp gis nañ fi kaawu dàmbooj ak otom bi nga xam ne dañ koo attaqué woon ñu jël ci ay disposition yoo xam ne dina tax ñoom ñooñee ñu gën a nekk en sécurité yi Sénégal réewum jàmm la te moom lañ fiy wootee bés bu yàlla sàkk li xew ci réew mi nag neexul kenn ndax bu ñu sañoon sénégalais bu ci nekk di nga dem ak dikk ca nanga ko bëggee bu ñu am ci réew mi ndax mi nga xam ne leader politique la dinañ ko bàyyi muy doxi ay soxlaam comme nam ko bëggee li nga xam ne nag moom lay kaas bés bu yàlla sàkk ne moom la ko état du Sénégal di daal di teg bu ñu sañoon du daal di am ndax nag ñëpp xam nañ ne yenn yëngu-yëngu yu bëri am ci réew mi dara waralu ko lu dul ndaw ñi nga xam ne dañoo ànd ak détermination fas yéene protéger seen projet bi nga xam ne dañ ne kenn naa ko porté jamono ji muy le président Ousmane Sonko lii moo di mbir mi kon nag essayons d'en trouver des moo gën fuuf ñu nar a nekk ci réew moo xam ne bés ak sànnante xeer ak lacrymogène la ñuy dal di nekkee nekk ci réew moo xam ne ngay taskatu xibaar ngay chroniqueur wala ngay homme politique ak foo mënti faree nga dem a dem a dem ba sentiratoo sa bopp en sécurité ci biir réew mi nekk na loo xam ne échec lay doon pour la démocratie sénégalaise waaye itam pour suñu nekkin ci biir réew mi dañoo war nekk ci réew moo xam ne état bi moo ñu war a assurer suñu sécurité. Madiambal Diagne li mu jël comme décision Mame Birame ko itam dëgg du yoon te nag teel cee jël ay matukaay moo gën foofu mu yegg foo xam ne mën naa jur ay jéeya nañu ñaan ñun ñëpp yàlla dolli jàmm ci réew mi dolli fi sutura waaye itam boole xol yi ñu nekk benn ndax kat ñaan soxla nañ ko lool ci réew mi ndax ni muy demee nii nekkul visage bi ñu xamoon ci Sénégal dem nañ sax ba communauté internationale bi yëpp lañ ñuy seetaan jamono ji di xool fan la ñuy mujjee ndax dañoo mës a nekk modèle ci àdduna bi yëpp fii ci continent Afrique ñu ñu daan cité en exemple réew yi yuy am seen biir ñeel ay xeet alors que boobu ñun Sénégal ñi ngi am démocratie bu dëgër waaye itam di kalante suñu biir tukulóor séeréer joola mandeng koo gis rek ak wolof yi ñu nekk benn àndandoo doo xàmmee kii mooy kan ak kële fan la daal di bokk loolu mooy Sénégal bi ñu xamoon nañu ñaan nag daal di ciy dellu ndax namm nañu ko lool namm itam réew moo xam ne lépp dafay daal di yomb ñu dund dund gu neex defee lépp ci jàmm ak salaam di demalante ak dikkalante ñu ci bëri ci la ñu di nekk dema dema dem nag ba bokk ci réew yi nga xam ni dañuy concurrence ca kaw a kaw ci wàllum économie ndax nag yàlla defal nañu xewal goo xam ni réew yu ci bëri amuñu ko muy ressource naturelle ak ressources humaines boo déggee ressource naturelle mooy am nañ pétrole gaz zircon or ak yeneen xeetu alal joo xam ne dafa nekk suñu biir suuf waaye ñu teg ci ressources humaines mooy ay ndaw ñoo xam ne ñi ngi fii bëgg liggéey am volonté gëm seen bopp yaakaar seen réew ngir daal di koy liggéey développé ko yóbbu ko fi nga xam ne fala la ñëpp di xaar kon lenn la ñu soxla mooy am itam ay leader yu compétent yoo xam ni dinañ am vision lool ci li nga xam ne moo ñeel alalu Sénégal ak i ndawam ngir ñu daal di koy conjuguer mu jaar yoon ñëpp mën cee gis seen bopp naataa naataange am ci réew mi suñu baay booy góorgóorlu yi ak suñu yaay booy yi dang dangi ci marché yi mën a noppaliku seeni njàngi doom seen seen wér gu yaram seen lekk ak seen naan lépp mën leen a yomb te mën nañu ko nous sommes capables de devenir un pays comme le Qatar lenn kese moo ñu koy may fulla fayda jom gëm suñu bopp am éthique ak déontologie bañ am benn complexe ci nit ñu weex ñi waaye itam bonne gouvernance doylu set sell di sellal waaye itam jub di jubal AGT News